waaye di ndokkeel suma sang Serigne Fallou Mbacké transitaire kor euh, Henriette Bour Sine bi euh, Serigne fàllu Mbacké euh, transitaire ñu ngi koy ziar bu baax laaj bi ci topp yaa oustaz est-ce que l'islam parle d'appartenance ethnique pour le mariage maanaam waaso diw ñeeño la diw géwél la diw géer la diw séeréer la diw joolaa la waruñoo sëy amul fu yàlla waxee ni bu géer takk géwél baqara ba naas amu ci amu ci bu géwal takk géer mhm. yàlla li mu ñu siteloo mooy jullit ak moroomam bu nu bëggantee mhm. seeni waajur d'accord ñu takkante mhm. comme ci charia ni ñuy takkee sëy mais waaso amul ci lislaam pap bu waaso amoon nit dana feebar tëdd hôpital ñu di ko may deret ne nañ wëri deretu géwal mbaa deretu géer mm. ku tëdd hôpital deret ba nga soxla mooy ka nga bokkal mm. groupe kon nanu bàyyiwaat xel suñu bopp yooyu ñu génnee ko ci suñuy bopp su fekkee dañoo nekk ci jamonoy xeebaate lay tax nga bañ a bokk ca ñañuy xeeb mooy na ku ne takk askanam géwél ña ca géwél ña géer ña ca géer ña parce que jamono moo mel noonu boo bañee ku la xeeb takkal sa askan géwél na takk géwél géer takk géer géwél ak bu ñu takkantee kër googu kër da koo dàq gën neex këru géwél waaw man a jabaru lu dàq këru géwél gis nga ko ci réew mii jabar jabaru géwél di laa bëgg Asta Mbaye wala faatu Mbuub day jaxer sàmm mais pap mais pap waaso amul ci l'islam amu ci de barki Serigne Touba amu ci l'islam lay amu ci waaye nag comme jamono dem na ba xeebaate am mhm. pap man dem naa ci takk goo xam ne dañu dem ba dernière minute ñu ne sëy bi dootul am parce que papa ji xamul woon ni mook waa ji mook kii bëgg doomam bokkuñu waaso ah billaahi wal ñu annulé sëy bi te am na mag ñoo xam ne dañ koo gëm am na mag ñoo xam ne kafewuñu ko. te mag ñooñu ñu ngi jaamu yàlla. xam nañu li yàlla wax topp aada ak bakkan moo leen ci dugal. aada ak bakkan moo leen ci dugal xeebaate. du ma may sama doom ku mu bokkalul naataango du ma may sama doom ku mu bokkalul askan. suñu deret kenn du ko rax. suñu deret kenn du ko rax. waaw comme jamonoy xeebaate la nu nekk pap na ku ne takk askanam. géer ña ca géer ña mhm. géwél ya ca géwél ya mhm. tëgg ya ca tëgg ya mhm. coow li jeex waaye daal ci cadre l'islam moom mais loolu l'islam waxu ko déedéet daal pape li mu wax ay jullit yu bëggante laxad karam naa dégg naa ngeen bani aadama yàllaa teral ñëpp ah. ku ne nim la bindee bokkul ak ku ne ni mu la bindee noonu la bindee sa morom li nga am moom la sa morom am penku bi ngay julli booy booy jublu booy julli fi ngay jublu yéen a ko bokk yéen a bokk nu ngeen di tuddee néew yéen a yéen tuddee doom yéen a bokk nu ngeen di jullee néew luy seen différence lépp yéen ko bokk ci cadre l'islam dara waru leen a boole nanu bàyyi xeebante bi àdduna day wëlbatiku wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naasi yàlla nee na jours yi day changé day wëlbatiku mën ngaa am tey ëllëg ñàkk dikkal la mën ngaa ñàkk tey ëllëg nga am foo toll del rafetal sa digganteeg nit ñi te bàyyi xeebaate mais mën nga ne diw du ko takk parce que amul salaam ndax mooy kii taay Coca Cola ak yooyu ñoom seen ay est-ce que bi baax na est-ce que appartement cinquième étage la est-ce que am na salaamaaleykum ak maaleykum salaam est-ce que voilà mel na ni jatulay yooyu yëpp ay critères la est-ce que mën nañ ci takk jabar oustaz critères yi ñuy tànnee jabar yooyu bokk ci. waaw mais critères yii ma la wax nii est-ce que gis jigéen dagg ba rafet rek mu dessiné woon nii mu mel ni lu yàlla defar rek. sànni ci àdduna na daggu léegi yii pap du ah. naturel boo ci dépendre dangay def erreur de. ah lu tax jot ñuy summee ko comme ku baraaye ji woon xoolal. Hmm. ay géem. foo fekkee loolu yow. <laughs> ku ci gis léegi bu sañsee ba pare géem yi lay lay xëcc nii. Ah, nag bi géen géen. ok géen yi la ñuy takk. génnee seen forme te meluñu noonu. photo sinab yi muudu muudu yi nañ ci def très attention. mais mais mais est-ce que am nga. waa ji daa takk waa ji daa takk jabaram ñibbi si toog ak moom di ko xool di xool di génnee téléphone bi di xool naan ni. <laughs> balaa ngay takk xool day xool ndax waa ji ndaw si la wala. <laughs> ndax filtre yi. ndax filtre yu bari <laughs> ak cheveux naturels yi. ak géem yi ak opéré yi. Air Maroc bi boo ko jëlee da ngay bokk ak ñoom vol ñu ci bari dañuy opéré ji Maroc lañ koy defee. mais dara nekku ci nag oustaz. naxaate la. non du naxaate. war la. ki yaakaar ni nii nga mel. ah maanaam mu gis la bëgg la. boobu bësee doo daj lu naturel quoi yónnee alalam takk la. Ah. ñibbi si ndekete yow ay mbuus nga mbuus. perméable. mais mool ay femme perméable la bëri ci réew mi ba. ay femmes yu mool lañu mool. xale bi dafa mool dégg nga ko ba tey mool. mool bi ci critères yi la. mool daal est-ce que mool mun nañ ci takk jabar. yeneen yonent bi daal rafet la wax. waa taar. waaw rafet kay xanaa mooy mool am na ñoo xam ne seen kanam dafa rafet te amuñu forme taar bu naturel am ñu seen kanam rafet te amuñu salaamaaleykum maaleykum salaam waaw maaleykum salaam bokkul ci critères yi yonent bi wax yonent bi rafet la wax rafetu kanam waaw rafet kay ci mool la ci loolu la bokk rafet du kanam rek rafet kay salaamaaleykum maaleykum salaam ci la bokk déglul ma wax la critères yi ak na ngeen yéen doog ci loo leen ne tunkixul mar'atu ana sa ñoom yaay oustaz xam nga lan la rek takk sa soxna si am na critères yoo xamante ni xool nga ko ci moom yow ku la xool ak sa peru bët yi xam ni xoolkat nga apprécier kat nga ab bandi nga donc salaamaaleykum ak maaleykum salaam mooy mottali kanam gu rafet na ngeen yéen doog balcon bi baax nag baaxul. pap tunkixul mar'atu li arba yonent bi nee na ñeenti critères la ñuy takkee jigéen. muy. ñu ne ko ban ak ban mu ni li jamaaliha mooy taar. nit mën na takk jabar ñu ne ko luy sa raison mu ne ndaw si daa rafet. voilà. mais rafet la wax de. waaw yi nga ci dugal yii yëpp. ay salaamaaleykum. yooyu ci rafet la bokk nag. Pape yooyu bokk ci. mais atte yooyu ci rafet la bokk. tunkixul mar'atu li arba. lu mu wundu loolu. yonent bi ne na ñeenti critère. mooy góor mën na cee takk jabar. demal li jamaaliha. Mhm. mooy ndaw si daa rafet. Mhm. mais critères yi wax ci rafet na sourire bi baax na. Ah. tu vas être d'accord avec ree ji neex na. kanamam delli na. <laughs> ak ñi ñaaw nañ ma baal mais yonent bi. <laughs> ñi ñaaw kay nañu xaar Halloween. rafet dafa am solo. mais yonent bi daf ko wax. voilà. ndaw si dafa rafet moo tax ma dugg ci. l'islam du ci du la ci condamné de. ah oui yonent bi nee na dinañu takk jigéen li jamaaliha. Mhm. ñu ne ko ak ban. mu ne wali maaliha. alal. góor dana takk jabar ñu ne ko loo ci gis mu ne gannaaw ba ma ko bëggee def soxna gis naa ni am na alal. Mhm. góor dana takk jabar ngir askan. Mhm. askan wi soxna si bokk moom laa bëgg. góor dana takk jabar ngir diine waaye Pape déggal la yonent bi daaneele lu mu daaneele fasfar bizaati diine mooy bu dee mën nga déglu ma tànn la su dee man sayduna muhammad sallallahu alayhi man nga bëgg ma tànnal la te ma la tànnal moom ngay takk yonent bi nee na takkal borom diine mais mais mais vraiment fii jamono toll moom mool la ñuy takkee moom dangay gis mu mool mais mool foo ko takkee moola dee ngi ñëw moola di xam nga moola di man moom toll naa foo xam ni moom takk ku mool pap te du nekk cas social <laughs> c'est important jabar ju mën ci <laughs> mooy jabaru jamono ji du la rey ak may ma deux mille man dem voilà mais pap mooy jabaru jamono ji en fait mais, mais pap ah. segam yonent bi moo nu gën a comprendre àdduna mm-hmm. gën ñu koo xam mm-hmm. cité kat yii yëpp mm-hmm. teewul mu ne man déglul ma tànnal la fas far bisaati diini takkal borom diine ñu ne ko lu tax mu ne boo ko deful taribat yee daaka dóor nga sa loxo ci ëkk taar gi saxul moolaay gi saxul ki mooloon ban dëkk ban tuddee ko mu dëkk mooloo bis a ngi ñëw ci bis bu ngeen yàggee tuuti boo ko xoolee ni kii du xanaa moo jógee woon mooloo <laughs> waaw ngeen àndandoo màgget ndax na mu màggatee nga xam ne voilà ngeen àndandoo màgget mais diine day fekk yow tamit nga màgget diine ngeen màggetandoo mais même Pape diine day fekk mu gën a bëgg kurus gi gën a bëgg jaamu yàlla. Mhm. mais yow di yeewu quatre heures du ah, matin. déedéet déedéet xam nga tax du ma ànd ak yow tey bu yaboo ñu dagg émission bi def ko à suivre tey du ma ànd ak yow mool da cee am solo léegi nag boo takkee ku mool mu dem ba moola di yow it am na fooy toll. dootoo mënati comme da ngay tànn luy jeex. tey ngaa tànn lu dul jeex. di nga moola di am na fu góor di toll dootoo mënati. comme da ngay tànn luy jeex ba. wax la dégg la laaj. oto xam nga oto léegi léegi doo tànn lu dul jeex comme mool gi moom day jeex mais jëlal diine diine moom du jeex day ànd ak yow di am diine nga génn àdduna muy am diine mu des fi di la ñaanal dese diine. mais man ni moom ni mu mënee moo la dee bis noon nga mën a melee ni oto bu yàqu sa moteur coulé wala motoor ba yàqu nga dem doo ba doo mënati dara oustaz arrêtel ma ni mool bi daf ci am solo ak euh, bañ a nekk cas social c'est ça la réponse mais quand même euh, am na règle yu am solo yoo xamante ni mu ngi ci euh, alxuraan. Mhm. beneen question très rapidement laataa ñuy tàggatoo ba di leen bàyyeeg aljuma ak xutba imam ci télévision Futur Média laaj bi ci topp.